jërëjëf alaaji Ablaay ñu jëfe ndigal rek comme mooy ndigalu sëriñ bi auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant Serigne Touba di ñaanal suñu kilifa Serigne Mountakha Bachir mu yàgg fi lool te wér ba naal yim am ci yoon wi yëpp mu eggale ko ak jàmm ànd ko ak ñu ñëpp kenn bañ a wute. Serigne Abo Baraka. ñi ngi jël kàddu bi nga xam ni moo ñu yebal fii ñu jottaleel ko ziaram ci bés bu tedd bii ak borom bés bu tedd bi ma ànd ci ak délégation bi ñuy lem léegi ma mën cee lim monsieur le ministre conseiller Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma madame le ministre conseiller Soxna Awa Diop mais lim ci aussi monsieur le gouverneur de la région de Diourbel préfet du département il faut politique yi ak coutumiers yi nga xam ñu ànd ak ñoom ma lim ci monsieur directeur général Gallo Ba maire de Mbacké waaye lim ci aussi Serigne Abdou Lahad Ka maire de Touba waaye mën cee lim képp kuy au conseiller député membre du conseil économique social et environnemental mu mën ci lim suñu baay baay Maguette Jaxate suñu baay baay Mor Ndiaye waaye lim ci aussi suñu xarit directeur Bara Gueye Morlo ak Moussa Thioune sëriñ bi maa ngi nuyu kilifa yu tedd yi tekk ci baas bi yépp kilifa diine kilifa aada kilifa politique di jottali nuyoo président Macky Sall aussi mbooleem kilifa yooyu teew fii wax ji dina gàtt lool sëriñ bi ndax ñi ñu jiitu ci kàddu gi daanaka tënk nañu waxtaan wi li ñuy def rek mooy jottali le message yu président la république muy sant bu baax waajuram sëriñ Muntaxa Bachir Mbàkke ndax daje bii ñu def nii tey ñaari at ci gannaaw ci def ko waaye jàpp na ne taxawaayu sëriñ bi ci wetam ci saayir ak ci baatin may nañu tey ñu daje pour màggal sëriñ Fàllu Mbàkke donc président mi ngi yóbbante sëñ sëñ Bachir ci waajuram sëñ Muntaxa di ko sant bu baax ci taxawaay boobu gis na ñaan yi ba tey ñu mën a daje fii màggal sëriñ Fallou sëriñ Abo président la République mi ngi lay jottali ziaram di la jottali aussi ñaanal la ngat fi ay misaal balaa ñuy jóg xanaa jàpp ci rek ñaar ci tënk ba ñett bi njëkk li sëriñ mënu wax ci sëriñ fallu sa waajur wu tedd ba jàpp nañ ne loolu yépp soññ la ab jàjj la ci ñun ñi ñi nga xam ne ñoo doon ay taalibe pour luñ ci ñaan muy bésu yonent bi di bésu sëriñ Fàllu Mbàkke jàpp na ne suñ borom dina ko nangu kon boog président mi yeesal ziyaareem yeesal kóllëreem sa diggante ak yow rahmatullahi taala wa barakatuh